waaye ñu leen nuyu di leen ziar yéen ñi suivre en ñu ñëw yéen ci benn vidéo wax ci Ismaïla Sarr bi nga xam ne def na premier but ak Olympique de Marseille Olympique de Marseille moo mën a 2 dañ ko rouge mais guddi Ismaïla Sarr mi ngi def max bu rëy moog Iliman Ndiaye Iliman Ndiaye doon ci moom vidéo pare Ismaïla Sarr la ñu wax laata ñu ñëw ci loolu nag ci gën a xuus dañuy wax yéen ñi kon ci bile page ngeen abonné te ngeen bës bi pour ngeen mën a am suñu ay vidéo au temps réel fii ci sport ngeen di commentaire di jamais ñu san ay kër ndax loolu dañu gën a mën a dooleel ñu gën a euh, mooy li nga xam ne euh, moom la bëgg di gën a mën a gëstu di a gën a ay information ci ñu ñëw ci Ismaïla Sarr premier étape bu incorrect def bu correct premier étape bu correct la def ci dribble yi ci vétel ci passe comme ni nga xam ne Iliman Ndiaye ci sañ-sañ bi moom mi ngi def ay exploit yoo xam ne exploit yu rëy la kon daal ñu def loolu moom euh, Ismaïla Sarr di ko ñaan bu baax mu continuer ci rendu bi ba mën a dugal bi ci deuxième état bi moog Iliman Ndiaye yëpp ndax loolu nekk benn coow nekk benn bourwee boo xam ne day wër Sénégal day wër monde ndax tey ñoom ñaar lañ teg excentre euh, Marseille dugal deux bi kon day wane ñoom ñaar ñi ngi sanctionné bu baax a baax ci centre bi malgré kenn dugal gu ci waaye euh, animation bi ñoo ko yore kon loolu nag mooy li nga xam ne ñun moom lañ gis ci bi mu nekk lu ñu neex nekk loo xam ne bu ko gisee ci gaynde Sénégal dañ koy saluer kon gis nañ ko ci Iliman Ndiaye Isma gis ko ci Ismaïla Sarr ñu saluer ko suñu leen waree critiquer dañu leen critiquer des fois gars yi dañuy di commenter commenter lu neexul mais nag football moo demee noonu loo far far boo gisee fay critiquer